sa mbokk internet yu BNTV Sénégal ñu ngi leen di nuyu kon bu baax a baax di leen ziar. ngeen gis kon ni ma ko waxee rek ñu ngi nii kon di jëm fële ca Porto Diéré ànd ak nag monsieur ministre maire Abdou Karim Sall euh, DG RTP su ko ñu war a amal foofu ca Porto euh, lépp lu am foofu ca Porto Diéré rek dañ ko euh, dégtal ko nag fii ci seen seen bi ngeen ko préféré nag di ci seen ay programme ànd ceeg Massamba Baye Fall nag ci yoon bi nag ñu nag équipe bu àndeen yëpp muy association Touba Mbacke Mbao Amadou Bamba ak ñoom Tra ci dëkk bu président ñoom Ibrahima Ba RMB TV kon gis nag ni mu ñu ngi jël nag euh, ñoom it ànd ak ñoom lépp rek ngir euh, liggéeyal euh, Sénégal moo ko waral wala di jóg a jëm nag fële eh, ah, lépp rek liggéey bi a baax di ko waxtaan ak defar rek dem bi mu gën a moo waral kon nag mu daal di ak convoi bu mag bi nag lépp rek ci gis nga ko ma nga di wax ak waa président Tra ak directeur Ibrahima ak directeur directeur Euh, Ousmane Mbaye Ousmane Mbaye euh, Mbaaw Info TV mi ngi noonu di dugg moom si oto bi suñu oto ngi noonu gis ngeen tra ak tra mi ci dossier bi ah président APM ma nga noonu nag euh, di tëj ak chauffeur bu baax bi acca ma nga noonu Ibrahima Ba DG